jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD yi mbokk yi am na avocat bu jàkkaarloo woon ak maître El Hadji ci benn plateau am wax ju mu wax wax ji nag mi ngi circulé vidéo boobu danañ leen ko tegal ci wax ji mi ngi naan seen projet nekkul fal Ousmane Sonko rek waaye projet bi bokk na ci nit kuy jaamu nit mu arrêté ko maanaam ñii di jébul di am sëriñ mu dakk ci réew mi wax jooju ndax ku bokk ci parti Pastef war na ko wax danañ ci posé question sëñ Cissé danañ waxtaanee li xew ci dëkk bi sëñ Cissé moo ne woon Modou Lo bu jëlee ki nga xamante ni mooy bot ñaa booy ñaa dana ci tax rippu Modou ak booy ñaa combat ba taxaw na sëñ Cissé nee na bu bis boobaa ngeen gis sëñ Cissé mu sol garaam bu nekk ci géew bi naan jëlal lii bàyyi lii defal lële danañ ko laaj ndax booy ñaa mbër mu ñuy saax saaxee la. danañ waxtaanee li xew ci dëkk bi mais Sonko mbokk yi bu ñu fàtte ne wax na ne dana delluwaat Mbàkke la mu ngànk ci Mbàkke muy mitin ba dana dagg loolu tamit danañ ci dugg andi ci ay leeral waxtaan waxtaanee li xew ci dëkk bi mais laata loolu dañuy bàyyi Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy mu nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi sëriñ bi ñoo ngi lay jaare laa xawla wala quwata ila billahi alil asim rabbi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli subhanaka la hilma lana ila ma allamtana innaka mbokki Pastef yi. maa ngi leen di nuyu. tey waa Pastef ngay nuyu. Pastef. waaw maa ngi leen di nuyu. sëñ Cissé est-ce du mën a tegal vidéo nga seetaan ko ba pare soog a nuyu waa Pastef. waaw kay bismillah nañ ko ñu xool vidéo boobu parce que wax ji tamit. ñu xool wax ji bëri na Sénégalais yu koy yu koy mettitlu. soog ñëw ma wax leen li tax ma nuyu leen. ñu xool vidéo bi te ñëw. la mooy sama mbokk yi li ñuy wax daawa. li ngay daawa lan la il faut nga comprendre projet bi. parce que projet bi nag fal président Ousmane Sonko étap la ci mais li ko tax a jug mooy soppi xar kanamu Sénégal su ngeen bëggee xam projet Pastef dem leen ci statut parti bi article 5 wala ci préambule bi di ngeen gis lan moo tax a jug Pastef xam nga lan la waxoon naa ko Pikine dama ko fi waxaat mooy jëlee jaam ñi ci jaamu seen moromu jaam yóbbu leen ci jaamu yàlla point final. fan yile bu ngeen seetloo. li tax nag ma ne maa ngi nuyu Pastef sëriñ si si mu sëriñ Babacar si dégg laajoon na ma ku ma ànd ak ma waxoon ko ko. man ki ma ànd ak gars yi xam nañu ko ndax bureau bi moom gëj naa fi. Cheikhul Khalifa gëj naa fi. maa ngi nuyu waa Pastef. waaye vidéo bi ma déglu. ndax waxoon naa leen ne Ousmane Sonko dafa am ay noonu privé. Ah. te ngañ nag bett na ma. Pastef dañoo réunion woon ñëpp ne communication bi moom lañ koy dénk waaye noonu privé yi ma doon wax ngañ kon moo njëkk a feeñ. mais lan moo tax nga noonu privé la. lan moo tax ngañ moom ci boppam. Uh-huh. ñu naan Ousmane Sonko. waaw ku ñi lu ñuy wax ku ñi ku ñi jiñ euh, vampire fekk la ngay soccoo yeelu liir. Uh-huh. dañ naan waajaa nga. Uh-huh. kon bu fekkee ne. waaw Ousmane Sonko dafa am lu réseaux sociaux yi di dawal ne Ousmane Sonko nangulul mag ñi. nangul ñu mag ñi bokkul ci benn tarixa am kenn ku ñu wax ne moom moo yor communication Ousmane Sonko ne dañoo bëgg Ousmane Sonko parti bi. lim li mu liñ nekkee. li ci gën a ndaw. maanaam fal Ousmane Sonko ci gën ndaw. fal Ousmane Sonko ci ndaw ñu ne déetawaay. mu ne moom ci boppam moo wax de. ne liñ bëgg nag mooy ne. nanu fexe maanaam jaamu nit maanaam amuk sëriñ dëñ. ak njëbal ak njëbal dëñ fi. njëbal ndax mën nañ koo jëlee Sénégal. mënu fee dëñ Ousmane sonk moo wax ci làmmiñu boppam ne moom taalibe wax ko mun Mountakha ne moom taalibe la tey ci tey bu ko Serigne Mountakha waxoon ne ko baxal mu ba toogal mu toog kon noonu privé yi ma doon wax ne Ousmane dafa am ñu rax ci biiram ñoo xam ne dañoo tuddee ne ñu ngi ci biir parti bi bëgg parti bi te waxuñ dëgg. waxuñu dëgg kon noonu privé yi ma leen doon wax naan noon yooyu na leen Ousmane euh, déclaré génn leen ci biti keroog bu leen Ousmane génn woon ci biti ma fal Ousmane. sëñ Cissé tegal ma sa baaraam foofu danañ continuer li nga xamante ni moom mooy euh, kàddu yooyu. Mm-hmm. tey da nga teg li nga xamante ni moom mooy ndaa jël enveloppe teg ci kaw. Mm-hmm. jël li nga xamante ni moom mooy téeñ bu weex daa ko koy dijee. Mm-hmm. lii lan la ginnaaw sëñ Cissé ci cosaan rek lay dox. lii. mooy li nga xam ne lépp loo xam ne lëndëm na ci réew mi mu bëgg mu leer lii ko waral xam naa sama waaj a nekk ca Amérique ginnaaw bi gars yi bëggee yëngal fii ci Mbàkke man nag wax daal ne ànduma benn parti politique Serigne Babacar Sy laa ànd ak mu woo ma na ma Serigne Cissé ma ne la bayka mu ne ma dama bëgg suñ wootee yëngu yi ñu war a def ci Mbàkke nga seetal ma ko mm-hmm. ma ne ko nangam laay seetee mu yëkkati jox ma la may seetee mu yëkkati ko yónnee ma ko. nga seetal ko ma seetal ko. ci mbiri Ousmane Sonko. waaye nag Ousmane li ma jaaxal ci ay mbiram. Ousmane de xaw ma kuy ndeyam. waaye ndeyam liggéey na. ah bon. maa la wax li alaj dégg. kan la ndeyam ko. Ousmane liggéey na. ndeyam liggéeyul. Ousmane ndeyam liggéey na. xam nga lu tax. Mhm. bi ma seetee ba pare na ko man nag gis naa nangam ak nangam ak nangam waaye dama ci gis kilifa guy wàcc liggéey. waaye nag wax na ma ne nii ak nii buñ ko defee dana jur lii. Mhm. waaye nag génne na saraxu nangam. waaw ci li tax ma ne la Ousmane Ndeyem liggéey na. Mhm. sarax ba di nangam waaja tollu ca Amérique daal di koy yónnewaat. xam nga pas-pas ak bëgg-bëgg. pas-pas ak bëgg-bëgg boobu ci koo xam ne cofeel la am ci nit ki ba mu jaral ko génne yenn yi jox ko nit ngir mu bañ dara dal nit ka moo tax ma ne Ousmane ndeyam liggéey na te fekk ci Ousmane Sonko la ma doon seetal ci liñ waroon a def mbakke ma seet ba pare na ko nangam la dafa xew waaye dama gis nag bakkan bu fay wàcce te bakkanub kilifa la ma ne ko sarax bi nag nee na buñ ko defee mbir ma dana tàng waaye li ma la wax ni déegi ne na évancé wu mhm. parce que gis nañ oto yu toj ak yëpp. yëpp yëpp yéen a ci teg seen bët. waaye man li ma xam ne maa ko dundal ba bopp te xam ko laay wax. mu yónnee ma te li tax ma ne ndeyam dafa liggéey wax nit loola ci cofeel gi mu am ci nit. ak som bi nga xam ne war naa génn ci ay sarax ngir wàññi wàññi tension mitin ba. ak ya waroon a am yëpp. te loola buñ ko defutoon. da nga dégg gàtt gàtt la cay gën a gàtt fukki nit ak ñeent la ko ca dégg moom yu dee. mu yónnee xaalis bi ma def sarax ba moo tax ma ne la ndeyam liggéey na ndax yenn yi barke la ak sarax sa ak bëgg nit ki te jëmmi yàlla ji tax moo tax ma ne Ousmane de xaw ma lu mën a xew waaye waajuram de liggéey na kër baayam. kon sarax lu am solo la. sarax am solo la nga laaj ma nag ci lii ci ndaal yi. barki démb da nga ma seet si fii ci sama kër. ma ne la tafaatin jekk na te ni ma gis mu tegoo nii. ay sëriñam naxuñu ko. te fa mu jaar. lii ma gis mu toppee ko bu ko toppee rek yàlla may ko ndam te ni ma gis ñu topp ci cadre ay sarax bu ko toppee yàlla dimbale ko. est-ce que duñu seetaan vidéo boobu si diggaat yeggale émission bi. waaw vidéo bi tegal ko ñu xool vidéo bi ci ñëwaat ndax nag ko génne. ndax man lu ma ñor dëgg dëgg dëgg ma bëgg cee xam lu ma wér dëgg ndaa li ma ubboon danaa ko ubbi xam li xew ci dëkk bi. ñu seetaan vidéo boobu ci diggaat victoire bi waaye nag na nga xam ne. Tapha Tine jekk na de. ci mystique. waaw fii may waxtaanee yow. waaw jekk na fi mu teg tànkam foofu la bu mu ko teggi bu ko teggiwul yàlla may ko ndam lu rëy. waaye bu ko teggee. no lamb tegtal la de. te tegtal yi ba ci biir bis bi ba si ba arbitre bi di civilé tafaatin fi mu teg tànkam nii bu mu ko teggi gis naa sarax yi aw na ñu yoon. te gis naa ne fi mu toll nii commencé na xabtal ji xam nga li nga wax Sénégal la ñu gis ko. Mm-hmm. mais bi ñu wàccee caméra yi. Mm-hmm. da ne ma làmb ja tafaay am ndam. Mm-hmm. te Bombardier du taq suuf. Mm. day blessé. lii nag yaakaar naa man témoignage bu am solo la boo xamante ne dama ne moom bu combat naa ko def. Mm. mais lii moo jàlloon laataa combat bi yaakaar naa ñu ko seetaanoon bëri na. xam nga Serigne Cissé ni ma gisee nii ma toog muskalaf mu wax. Ah. man muskalaf laa kilifa laa gu mat sëkk. Mm. kilifa gu mat sëkk. ci saayir ak ci baatin. kon lépp lu may wax duma ci topp sama bakkan bii ku topp bakkanam du tax mu wax lépp lu ma wax yàllaa wax wa maa yantiqu anil hawa yaa ngi dégg kon jéppal ne lépp lu ma la wax ci mbirum seet nit ki seet rek mën nga ko koo defal mbiram ubbeeku ba faw te du ngeen jëflante ci ay yónne sangatak ay yónne nangam sarax rek nga koy seetal mu génne sarax ya yàlla defeer mboole mi mbiram bu dee même ci tolluwaayu réew mi ma xam ne réew mi tension war na cee nekk nit woo ma na ma sëriñ Cissé lii dama bëgg ci tolluwaayu réew mi nga xool ko ma xool ko uh-huh. mu génne la mu génne bu ma la ko waxee boo ko génnee boo waroon a doon fukk benn lay mujj doon ndax lan moo koy contre sarax ba moo koy contre ndax da ngay fexe xam sarax ba ndax bi ma lay leeralal ci diggante tafaatin ak bombardier dama la wax ne bombardier li tax mu naqaree dajeeg nag day dem ba fexe xam yow sa tabiha lan la li sa raw xan nangu kereeg bu ko xamee pour nga bëree moom daan ko problème la waaye tafaa fi mu teg tànkam baax na ndax loola bombardier xamagul ko waaye kereeg bu ko xamoon ndax kilifa day muur boppam ba sëriñ bi bu ko bëggee xool ci ay pétaaw du ko gis bu ko bëggee xool ci ram ko gis bu ko bëggee xool ci CRD du ko gis bu ko bëggee xool ba ci ndox ba ci ndaali pour mu gis ko du ne ndax ndaali yàlla xam na ne dara jëy Serigne Babacar Sy alay dégg mbaa xam nga ne ndaali bu ma defee ndox ba pare jàng li may jàng jëmmi nit ki may seet day taxaw ci digg ndaali la ilaha illallah allah jëmmi nit ki may seet day ne ci digg ndaal yi. Hmm. lii ma teg ci nag du dara lu dul enveloppe yi war a dem bitim réew dongu la. Ah, parce que sànq danga ne ma enveloppe li ci nekk du dara lu dul mbirum këyit. papier mbirum papier dong la lii ay ñaani jàmbur la yu ma fi teg du leneen. li ci def nag mooy ndaali bu ma ci defee ndox ba pare yow mi nga xam ne yaa bëgg ko gis say mbir danga may jox sa turu baay jox ma sa turu yaay dox ma sa turu sa tur yow bu dee ñaari tur ngay wuyoo foo mën a nekk moo xam fii ci réew mi moo xam bitim réew nga ne bu nu jàngee lu nuy jàng ba tëfli ko ci ndaali wallahi alxasim lu nu bëgg a xam ci yow xam ko yow mi nga xam ne yow mi nga xam ne ba ci politicien be ku mën a doon ci àdduna ah. li may jàng bu ma ko jàng ba tëfli ci ndaali sa image mooy wàcc ci ci ndaali loo bëgg xam ci yow xam ko nga jamono jii. Uh-huh. dañoo toll ci jamonoy jamonoy gisuma ko waaye jamonoy amul tollatuñ fa. Ah, jamonoy amul tollatuñ fa. am seet da nga koy man xam-xam boo ko amul nga jàng ji ko tarbiye ko. Mm-hmm. dégg nga ah. bu fekkee nag xam-xamu politique nga yemal ci politique bu xewee xam-xamu sëriñ nga amee nga yem ci. Uh-huh. dégg nga boo gisee làmb bu xewee sëriñ Cissé man cee wax. xam-xamu làmb dama koo jàng ba maîtriser ko. Uh-huh. dégg nga xam-xamu xel mu nu joom dañ koo jàng maîtriser ko xel joom ni nga ko mën a jàngee xam-xamu biddiw la xam-xamu biddiw nag bu fekkee ne da nga bëgg a taxal nit ki faaw nga xam biddiwam lan la xam xawaay yu xam naar yu xam trois yu bu xam maay boo xamee yooyu si ngay mën a dëgg ba defaral nit ki ay mbiram moo tax Cissé léegi nag maa ngi dégg slogan boobu sëriñ si jël ko ku bëgg ma liggéey la dama lay seetal man sëriñ Mansour borom daara ji sama sëriñ moo mën a Cissé ma ne la béykat mu ne ma bu fekkee ne bëgg ngaa am ci jaam ñi ndam lépp looy dugganteeg jaam bi dee ko seet boo koy seet rek wallahi alhasim yàlla mën naa def lépp loo xam ne bëggal nga ko jàmm bi yàlla defal la ko ndaali wóor na seexul xalifa sëriñ kër Si mii ci sama ginnaaw lépp loo xam ne bëgg naa koo xam ci jàmm bu ma xamee sa turu yaay xam sa turu baay yàlla xam ne na ma def ndox ba mu digg ma tiim ndaali jàng la may jàng sa jëmmu day teewee ci ndaali te lu lenn loo xam ne ci mag ñi laa ko jëlee xam-xam dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy tarbiyu xam-xam dañ dalay jaral lu bare bari danaa fekk mag toog yor yàlla mu ne ma turu wi un million may jox mu jaral ma ma jël un million jox ko ko ngir tur yàlla wu mu yor ndax man ñaan laa yaakaar yoree ko sama njaboot moo tax lu ma la wax ci xam-xam man bu nekkul ci man rek xam naa ko ko yor koo xam ne bu mu ci songoon tey tey jii ma woo ko na ko lii laa soxla mu jox ma ko. enveloppe bi euh, da nga yëkkati muy juróomi enveloppe. Mm-hmm. nga ne ma. Mm-hmm. seeni borom ay taalibe cheikh lañ. Mm-hmm. nga wàcc ci sëñ Babacar Si ne ma ren danañ gàmm si. bu soobee te am te te amaguñ ay kayit nag. non non non nga mbir mi. lépp looy wax boo ko gëmul jarul ngaa gis nga ñaan avant tout yow mi nga xam ne boo koy wax mun say siise mu leer ma ne wax ji may wax ay fen rek rek la ci man duma ko jox nit mu jëriñoo ko waaye yow miy wax wax ji na la leer ne li ngay wax xaqiiqa la ju wér nga jëflante koog nit ki xaqiiqa nag bu wéree rek rek rek rek rek rek yàlla defar mbir ya xaqiiqa mooy lépp gis nga téere bii di téere bi yàlla bii lépp la man ci àdduna lépp la man ci àdduna lépp la man ne la la mën a aaree am na mbubu soo xam ne tey ci tey alaaj dégg bu ma la ko loon bu la nit tiimoon di la roosay bal dalu ti yow dara ah waa ana fii ñu ngi fi yaa ngi dégg ah. loola nag li taxoon ñu ko daan def mooy ne yow mi nga xam ne da am ay noonu privé yoo xam ne mm. foo jàll bi ko ñu ngi lay koj di la wër guddi ak bëccëg comme par exemple euh, nu ma la mën a joxe exemple comme Ousmane Sonko ni mu nekkee ci ay ay euh, euh, mbir moo gaa yi tey ñu kar la fii suba nga am foofa boobu bu ne jàpp ci sa yaram bi ah. wallahi bal la dugg saytaane doo dajeeg moom Sonko oto blindé lañ koy wutal dégg naa oto lan oto blindé na jël sile bi te dawal oto bi yor bu ma ko joxee sile bi bal du ko dugg bu ma ko joxee sile bi noon bu ko xaar doon a xaddi sama sile bi ku ma ko ci jox ci àdduna waat naa si doloy Serigne Babacar Si ku la xaar day xaddi la ilaha illallah yaa ngi may dégg ay dégg man yëfe mag ña laa yor moo tax ku laal mag ñi ma yëngu boo gisee ma ne leen kii noonu privé la ci Sonko mag ñi nga xam ne jël na ko dóor ko ci kaw Sonko te mag ñi la yaakaar wala pour lan nga ne parce que ngay jàppale ñëw communiquer communication bi. fi mu toll dëkk bi yëpp di jël euh, euh, vidéo boobu di ko tas. pour lan. du pour lan. déedéet. taal bëgg naa ñu ñëw ci andi ci ay leeral. gis nga dóom bant la bant bi ki ko moom borom bi la gis nga doom taal bu fekkee ne yow mi nga xam ne mag ñi dañuy wax ne bu fekkoon ne da nga jur doom doom ji ci boppam nga dem ba maanaam euh, euh, dañuy wax ne boo muccee ndakaaru na xam nga lu ne lañuy def am doom tey suba nga kiinde dox sa soxla ndakaaru fañ koy def mm. waaye bu dee ca dëkk ba dañ naan la wutal kër yi du ko ci sa jëfi bu fekkee ne mbirum cat tey bu fekkoon ne alam nasara da nga ma koy bindal cent vingt six wa in yakaadu cent vingt six yéen nga xoray si li ilaa fi xoray si cent vingt six boo ko bindee ak yéen war a ànd ak nga wut doom doom bi nag da ngay fexe ba nga koy am doom bi tàng jër nga def ko ca saafara sa da ngaa mu ci mucc ci làmmeñi def ci doom hmm. danga ngaa bëgg ku la songu yàqu def ci doo da ngaa bëgg ku la ju ku la jublu bëgg laa sàkkal pexe yàqu def ci doom lépp li ma la wax nag dama ne la na nga bind alam nasara na nga bind ayatul kursi yu na nga bind na nga bind li ilaafi Quraysh boo ko bindee nag ba mu nekk saafara lim boo ma wax la ak yam war a ànd ak yom nga am ko doom bi nekk doom bu tàng jër nga def ko ci saafara si mag ñi la dañ daa wax ne bu fekkee ne doom ba nam téye noon nga tooyal ci juróom-ñaari dank dank ko comme ni ngeen ndakkee naa koy dëj nga def ko ca saafara boobu képp koo xam ne jóg bëgg laa xeex. waat naa ci doole sëriñ Babacar si du ko nettali. billaahi kerek bu jogee pour ne sa bët bii la bëgg a xonqal bëtam dana xonq te adduna yëpp danañ ci teg seen bët. sëriñ Cissé mu Serigne Babacar Sy numéro yaa ngi noonu affiché sëñ bi ndomba. wala Serigne Cissé mu Serigne Babacar kër waaw dee ma ci tegal radiyallahu taala anhu. radiyallahu taala anhu. ay walaaj ma question bi. question bi mooy ndomba gi ndomba gi. Mhm. saay saay si nga xam ne alaaji Medoune dafa am nu ko yàlla def ci réew mi. Mhm. mu yor site bi ñuy wax imporoon. Mhm. musiciens yi bëgg ko. waaw politiciens yi bëgg ko. sëriñ si bëgg ko théâtre yi bëgg ko nga ne na site bi fay. la ko Médoune kaay. Uh-huh. xam nga man Médoune sama waay. waaw ku ne am na waay ci réew mi. ma ne ko Médoune dikkal. Uh-huh. Médoune ñëw. ma ne ko lii lan la mu ne ma ndomba. Uh-huh. benn téere. waaw dégg nga benn téere téere yi gis ngeen niñ toll. ñaar. ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñaari bunt yi ñoo am ci kaw suuf juróom ñaari yi ñoo am ci kaw suuf ma ne ko medu ñii lay xeex mu ne waaw ma ne ko kaay sukkal fii ma gawal ko ñaari bopp yi xam nga bopp da nga daan gis ñaari dañ daan juwele bii nag bopp yëpp ñooy bokk fuñ bayee ko mhm. du du juweloo mukk ma takkal ko medu ñoo ñëwoon ne impro du dem ña ko waxoon ba Médoune xam leen. ñu ne Médoune du dem impro du dem danañ ko fay. danañu fay par benn dellu ginnaaw ni taat. dellu ginnaaw ni taat. artiste bu mag ci réew mi. dafa dem fii ci ndoxoo ba. bi demee góor ga na ko. boo bëggee dellu ginnaaw ni taat na na fexe ba boole ma ci wax ji. la ilaha illallah. na nga fexe ba boole ma ci wax ji kerek boo ma boolee ci wax ji da nga dellu ginnaaw ba mel ni taat. fii fii ci fii ci ndoxoo ba. kon ndomba gi ndomba noonu la. noonu na ko tax a jóg. lay ndeysaan te noonu ko tax a jóg noonu soriwul da lay jege. noonu du taay yi. saa su gisee nga samp samp bu bees. Mhm. mu ngi dox ay pexe ngir yàqal la. Mhm. sëriñ Abdou Al Amin sama sëriñ day wax ne. lu mu jaral waaje ngir mu yàqu yow na la ko jaral ngir mu baax. ndax malfaiteur yi. ndax wuyu yi ndax trafiquant de personnalité yi. ndax saay saay lu ndax bëgguñ waaju baax bëgguñ ko baax te kuñ kuis ku baax ñu ngay fexe nuñ gasee sa tànk bi. sëriñ Cissé nag képp koo xam ne noonu nag am ko baax na ndax am noon mooy waral yow nga mën a góor góorgóorlu am fooy teg sa bët bii ngir man faa mën a yegg waaye daal gis nga li boo ne ko raat juróom-ñaari bunt yi nekk ci kaw suuf moom lañ tëggee ndomba gi te àdduna juróom-ñaari bunt yi ci ne moo nekk nii yaa ngi dégg kon yow mi nga xam ne da nga jóg ngir ne man daal Serigne Cissé moom ni mu mel ni muy sañse di waxtaan waxtaan wi muy waxtaan daal soof na ma nga ne naa jóg ci Cissé boo ci jógee doo ko nettali balaay dégg. aywa bismillah. Euh, bokk na ci lekk gu bon jamono ji solal na nit ñi am na ñoo xamante ni lekk gu bon ëf na seen biir bi ñii mu jural leen sa xeeti jàngoro yoo xamante ni xamuñ fi ñu koy fajoo ci kërug àdduna. waaw bu ko defee ñu naan ñu naan ko ginaar yi dugg na ko. fekk noob ko foraxane ca biir ba. liggéey bu forax bu xasee ne ci biir biir ba dañ jey janj rek jëm kaw. yaa ngi dégg. Ah. kon yow mi nga xam ne da nga lekk noob. sëriñ si seen kaay naan ci bant yi. yow mi nga xam ne doom nga bëgg kaay naan ci bant yi yow mi nga xam ne boo yé danga bëgg boo yéegee ci kaw jigéen man faa yàgg kaay naan ci bant yi yow mi rab jàppit kaay naan ci bant waaye yow mi am ne liggéey dafa ne ci sa biir biir bi naanal ci bant yi boo ci naanee mu deñ tey bureau sëñ Babacar laa ne de bureau bi may faja aajo yi tey fi laa fan yee fan yee deuxième cabinet laa ne woon bu seexul xalifa waaye premier cabinet bu sëriñ Babacar si laa ne laaj ma euh, tey boo xoolee junj nga lu am solo muy bant yi ku ci naan boo yéegee ci kaw jigéen yàgg fa. loole nekk na loo xamante ni. dara gënu ko nekk li leen ñor dañ leen ciy dimbale bëgg nañ di bégal soxna yi ci biir léegi li may wax gaa yi am nañ dépasse su poos waaye amuñ dépasse su kaw lal. dépasse su kaw lal yi nag faaw nga leen ciy dimbale yàlla boo ko wuutoo ci jaam ñi mu wuutu la ci sa bopp. yàlla. Uh-huh. boo ko wuutoo ci jaam ñi mu wuutu la ci sa bopp. Uh-huh. kon yàlla nañ ko wuutu ci ci ci jaamam ñi mu wuutu ñi ci suñ bopp. ak lan. sëñ Cissé jot naa benn yóbbante boo xamante ni benn xale bu jigéen moom ma ko wax. Mm-hmm. ne ma sëñ Cissé tax na bi ma dégloo émission bi passé mu ne bàyyi leen mbàjj yi ngeen di sangoo te bàyyi cuuraay yi ngeen taal te uti jëkkër. waaye émission day am jàngale. mu ne sama fiancé proposé naa ko nee naa ko mm-hmm. danga may takk ren bu Saint-Valentin passé. waaye bu fekkee ne Serigne Cissé. Uh-huh. réew mi dañ koy déglu ma bëgg a toog ci ndomba gi ku ko def nii mu def la nii béjjën bi ku ko takk mu def la nii jaar bi ku ko takk mu def la nii askan wi daal du ma wax lu nit mën a jàngee waaye nañ ma ba waaye xam ne sama bopp ma ñor nag. góom bu am solo nga dégg nga bu fekkee ne yow mbàjj goo seen tur ki yónnee ko mu ñëw ci réew mi. jaaykat asan cuuraay bu cuuraay bu mu estati nga ne ko yónnee ma ko. parfum bu mu def nga yónnee ma ko. te ki nga koy taxalal nag leer nañ la kii takkul la. safar loolu mu ngi ci dëkk bi. mais loolu am Dakar. dégg naa benn dégg naa fan yi benn sëriñ ma dégg mu ne dafa am ñoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi dañuy dañuy jël ñaari jigéen teg leen benn sëriñ bu ma dégg mu wax ko. tous sëriñ ba dëgg rek la wax. mu ne dañuy benn be waaye benn nit looy defee ñaari jigéen. day plaisir duñ ci daal ñi ñuy yëpp li kon li tax ñu leen di filmé. plaisir duñ ñu leen ñi ñuy filmé. li tax ñu leen di filmé ku nekkee ci kaw keneen jigéen looy talee sa bopp danañ la photo. la ilaha illallah. ñaari nit ku lay teg ñu foto la te ko yëg. kon soxna yi nañu am fulla ju doy ne. baa may sangu ci mbàjj gi di ko pompe parfum. baa may sangu ci mbàjj gi wala may taxalu cuuraay danañ dem ci jumaa ja yaa ay weeja jóg ñu doog dugg ci mbàjj gi. bu loola amut bañal. Hmm. waaye ñi nga xam ne amuñu soxna yii yëg guddi gi sax ñu am soxna duñ ko yëg. dégg naa célibataire yi jamono jii ñoom sax li ñuy dund ci ñenn ci célibataire li ñuy dund ci plaisir marié sax duñ ko dund. moo tax buñ takkee jabar duñu am doom. ndax lañ waroon a jëflante ngir am doom. Mm-hmm. yi dem na. allahu jeex na tag da recevoir rek di recevoir rek di bakkan bi muy neex ba boo takkee jabar nag sëriñ boo dégg mu ne am naa lu yokk ndoxum góor nga dem fa. fekk ndox ma dana bari waaye walax njaay dem na doom du juddu. déedéet ndeysaan doom société la. bu jeexee foo jëlee société. Hmm. day tas. bu lay ndeysaan sëriñ Cissé mu sëñ Babacar Sy wax nga sànq nopp. Hmm. nopp tamit bëgg naa nga dugg ci ànd ma ci ay leer yu am solo. naa ci résultat bu ne dimbalee naa ci nun nu ne. Hmm. képp ku am ku la të. waaw woo ma ma jàpp ci. yàlla boole leen. ngeen ànd. lépp di dox ci barkeem sëñ Babacar Si. alxuraan tey bu fekkoon ne dafa taxawal gouvernement tey mën ngaa jël lu mel ne ayatu kursi yi def ko intérieur parce que day dox ci kaaraange mais su ma la finance kan nga may indi. nga dëgg. walaay waaw ah waaye dégg daal yaa baax yàlla nga gudd fan. yàlla nga wér. am jàmm loolu yegg ni ko ni yoon ca daraja sëñ Babacar. boo bu ma ko falul kursi yi ku koy fal. kursi yi loo koy fal. course yi loo wax na laa koy fal. kaaraange nga wax. waaw mooy intérêt yor wàllu euh, sécurité bi. waaw moo ko yor. course yu finance nga ma. finance wàqaa. walaay xanaa alam nasara da koy jàppale ci. alam nasara day ñëw. yaa ngi dégg. suma afidoo min xay si afaada day ñëw. ñëwee bokk ci conseil yi. loolu ku ko sangoo am alal moom. waaw ak kafel ngay boole. bu ma jëlee wàqaa. def ko finance. yaa ngi dégg dem jëli suma afido boole ko ci boole ko ci conseil yi yaa ngi dégg jëli alam nasara boole ko ci conseil yi yaa ngi dégg bo bo bo boole ca yaasin ca conseil ya ah yow force falu force la kon li nga wax alaaj dégg yow mii <laughs> yaa baax <laughs> yaa baax seetal tëggin mii nga tëgg lii mooy alquran waaye buñ la laajee leetar bi ak tur sam lu mu rëy rëy rëy lu wax jëre rëy rëy bu génneewu ca faatiha ku la ko wax waxu dëgg mooy baas mooy baas faatiha mooy baas ihdina siraatal mustaqima an'amta alayhim ah Fatiha Fatiha fa la mbiree ne ku la ne siru bi boo koy ñoo di da am xaalis te génnewul ca Fatiha jàppal ne mu ngi lay nax. sëñ si yëg nga ne am na ñuy joxe ay wérd ci TikTok bi ña daan jëfandikoo wérd yi ñu bëree bëri génn nañ seen kër ndey ñii ñu ngi taxaw sax di saaga seen waajuru jigéen. waaye secret. secret. baatin dafa am lu mu bëgg baatin dañu koy nëbbu. rawatina turu yàlla wii doxali mbir dëgg kenn du ko naan boo ko defee nangam am nangam. toog ci ismulaay ansam bu wér nga toog ci internet naan ismulaay bi ku ko defee ni am nii da lay nax moom jote wut ca noonu de ismulaay ansam Serigne Cissé da koy soxla dégg góor gu mag ñu ne yor na ismulaay ansam góor gi woola la na la sama sama doom mu ne la bekk mu ne la lii laa lay sas boo ma ko joxee ma jox la ismulaay bi kon yow mi ko soxla waat ci Serigne Cissé Serigne Cissé nam jaayante woon ba am ko boo ko soxlaa noonu ngay jaayantee waaye nag réew mi dañoo bëgg ne ak cant daf fay jeex te cant du fi jeex. Ah, alaaj medun waaw nit ki lu manut bu ko ko nit defalee mu ne ko jëri jëf wallaay gis nga Macky na nanu xam ne mooy sunu président. mooy yilif réew mi. yàlla nag moo jàngale ne. Uhuh. qul allaahumma maalikal mulki nguur ci loxol yàlla bi la ne. Macky mënuñoo fexe ba génne ko fi te yàlla génnewul ko fi. waaye bu fekkee ne président Macky Sall defal na sëriñ Babacar Mansour lu baax. sëñ Babacar yàlla njëkk a wax ne ku santul nit doo sant yàlla. wallaay wallaay kon moom sëriñ Babacar Mansour dana ko sant Cheikh Mahi Niass. boo ko président defalee lu baax jërëjëf la ca man. Mhm. ndax Ousmane Sonko mii ñu bëgg a fal ci dëkk bi keroog bu yàlla defee mu toog ci réew mii fu defee lu baax bëgg nañ ko wax jërëjëf jël kurus ñaanal ko yàlla. kon lan moo tax ak cant ñu bëgg ko fee dindi te cant njëkk mujj nanu bàyyi caaxaan gi te cant gi ñu bañu koy cant nañ di cant ñiy def lu baax yi ku fi def lu bon nag buñ la mënee weer ni géej gi nañ ko def mag ñi nag ah, ah. man dama wax ne maay seen avocat bu leen kenn laal mm-hmm. sëriñ si nga xam ne mm-hmm. seen donoy maam yi nañ ko ñag ñun taalibe yi ñu ñëw jàppale leen mm-hmm. sëriñ si nanu ñan nañu ñag seen donoy maam yi ñun taalibe yi ñu ñëw jàppale leen ndax boo gisee taalibe yi sëriñ si ñu leen di wax lu ne mooy ñi nga xam ne danoo bokk ci këru diine yi ba pare seen donooy maam yi lañ ca am ñu xeeb ko ba pare daw dëgmali politique bi seen maam yi ñuy xas ñoom ñoo ko njëkk a maye. nanu wormaal mag ñi wormaal maam yi li fi maam yi bàyyi ndax madinatu munawara amoon nañ mag ñoo xam ne démb ñoo ñu gënoon ay mag waaye tey ñoo leen gën ay mag la rappal mag yi madinatu munawara yee nag lu mel noon moo dugg si ci réew mi te loola duñ buñ bàyyi mu continuer loola buñ bàyyi mu continuer nanu warmaal mag ñi bàyyi mag ñi seen place te ñu nangu li yàlla def ci ñoom ku fi yàlla teg ëllëg ñu xam ne kii la fi teg Ousmane nag yàlla defal na ko lu jafe mooy ne nit ñi bëgg nañ ko gëm nañ ko wóolu nañ ko yaakaar nañ ko dégg nga président Macky Sall la fi yàlla ba nañu ànd ak moom keroog bu yàlla jeexalee nguuram ñu xam ne jeex na ku mu fi fal ñu ànd ak moom Cissé nag Serigne baaba kër ànd ak moom. yow koo àndal. kii Serigne Babacar si. moom rek nga àndal. sëñ Babacar rek laa ànd ak. xam naa ne doo ko rax. lu tax ma koy rax daf maa rax. sëñ Babacar ñemewoo koo njar. du ma ko njar ndax njarun ma. sëñ Cissé looy tàggatoo ak looy wax askan wi lay siiw ci impro. waaw waaw xanaa alhamdulilah rabbil alamin wasalaamaaleykum yàlla na ñëpp am jàmm. ci daraja yi Serigne Babacar Sy jërë ngeen jëf. ayca mbokk yi dégg ngeen waxtaan wu am solo wi Serigne Cissé mu Serigne Babacar Sy waxtaanee tey mu nekk waxtaan woo xamante ni ku ko dégg xam ne boroom xam-xam waxati na mais andi na ay leeral ci jëmm. waaw. démb signateur amoon na. waaw mu la mujj xam nga fàtte woon loolu. da nga ko fàtte. xam bu ñu duggee si Babacar rek maa ne kànj kànj yi maa ñoom ay kal lanu. Ah. te maay seen buur. kànj kànj yi andi euh, ñoo ko war a indi. mu bëri Moodu. maay seen buur. baax na. te buur sañ naa wax euh, euh, jaamam na ko tëddal. lay leexi la daal kanji kanji yi. Uh-huh. mag ñoom mbaa xam nga ne làmb mooy dàq ci làmb ju mën a am ci àdduna. combat du siècle la. combat njëkk ba laa gisaat. lii ko raw. Uh-huh. li mag kanji kanji yi. Uh-huh. mu doog booy jaa. ñoom day neex lool waaye mag kanji kanji yi day neex lool. ñoom xëy lonkaan man nag li ma jaaxal ci waa lonkaan dañoo mën a fas. <laughs> ñii bi maa xam génn góor goo xam ne ak a doy waar. waaye nag dama leen wax xam nga man mag ñi samay xarit loon nee naa Moustapha Moustapha Kañ ma ne ko sa góor yooyu nga daan wax ñuy dugg ci combat bii ne leen ñu muñ te xam ne man maay seen buur te Modou nag première sortie la de ci roi des arènes dafa war a am ndam uh-huh. te ndam loolu bëgguma ngeen dugg ci di ko xajamal toog leen yéen maay seen buur buñ demee nag bu béyee ko ci lii ko Boy Niang dafa baax te sama nit la boo tax làmb ji yu bëri mënatuma koy def moo tax yu bëri dama ko naan léegi ma jàppan mbër takk ko ba du du kii. du kii. <laughs> du fonctionné. <laughs> waa kër waa naa lam daal jërë ngeen jëf. mbokk yi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla na ngeen bëri jàmm ci dara jëye Mouhamed